assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ci ñu dëkk bu sel bi di Touba nek ci magal gi nga xamanteni modi moo di vingt muharram màggal gi nga xamanteni moy bis bi Serigne Touba ñibbisee won ci dëkkam bu sel bi di Touba sa kenn waral ko ko dul Serigne Modou Moustapha ndax lepp lo xamanteni ni nak ko rek defal nak ko bi bi liggéey ñing fi ci Serigne di khalifa Serigne Cheikh Ahmadou mbacke Gaïndé farma kenn ku nek xamne ne Serigne Cheikh Ahmadou mbacke farma fi Serigne Touba ñuy magal magal gogu kenn ku nek xamna taxawa bi nga xamanteni mom la ci taxawon ba bi mu làqoo ñëpp kenn ku bokk ci ay njabootam rek ñëw nañ di màggal bis boobu tey nag ñu ngi fii ci kër sëñ Abdourahmane di xalifa sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma fas yéene na nag lépp loo xamante ne ñëw na fi ci ay ziar ak interview rek fas yéene leen ko defal dégtal leen ko dañu ànd suñu cameraman rek daa dugg ci biir fas yéene dégtal lépp la xew fii Cheikh Moustapha santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka nga yoo ci Moustapha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 امول كن كل خيراتي لوم ننتي مصطفى ولا يا ريم يا برم خاسني مصطفى محمد عبد الله اخني بمصطفى نيا خير اني مات سين غي يفوق نان كدي سين غي مني سان نانكم مصطفى ñada jabarak ñada xaatima ñada luxus yalax nañu seen xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustawa ñi ngay woo nee nañu waawaaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustawa ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw ree ku jëkki jooy nda yaa doon Mustawa wolof nee na bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla wooteloo ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sëriñ bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaak siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin njaaga bambay njaag mooy njiin fa Mustafa ku fay nag jikkoom war naa la ne mi nuyu Sëriñ Abdourahmane ne di nu bokk ne ci jotaayam bii mu toog itam ne Cheikh Amadou Bachir ne wóor na ko ni nee dafa bokk ci ñi nga xam ni ñu yilif leen moo ko gënal mu yilife nee moom Cheikh Abdourahmane mii loolu la ko yàlla bindee nee moo tax mboolem magam yëpp mu tarbiyewu leen ba mel ne taalib bokk ci ne mu làq sa ngërëm nee kenn mus cee xam ak ولا أبنم نتاملك سندك نتيجة تيمك سندك سخنولو نبخمنا وعلو خمس سيتر مملة جيتر مدف جيتر أجم أبسيف بلورو كومي ليمانتي كون مم ليمان دو خوجند ني شيخ عبد الفتاح ايتام ني دير بي في شيخ عبد الفتاح ني daa topp ci ginnaawam rek nanguwut a feeñ fenn mais bi muy ñëw nag mi ngi ànd ak Cheikh Moustapha moom Cheikh Mamadou Lamine Baara ne da koo fekkoon mu siyaar si sëriñ bi waaye mu àndaat ak doomam ju baax ji dellu si ne digganteem ak Cheikh Mamadou Lamine Baara wóor na ñëpp waaye. شيخ مصطفى امينك ني تيغنتي ماك شيخ مدرم بار اك فامو يغلب ني تي سيغ مصطفى ميلا تامبلي دوكو شيخ مدرم بار لي جوخ ديغال لي وخو بامو نيو مو جيل كايت ماغال كي جوخكو نيكولا كن سنتو مو سرين توبا تي بوفم موما بولي يو نيكون لولو nee moom Cheikh Moustapha doomam ji nag faaw mu seeleel la ko ndax taxawaayu Cheikh Moustapha ci moom bi fi Cheikh Mamadou Lamine Bara di nekk dara mosutee man ne aar bu mësee Cheikh Moustapha Cheikh Mamadou Lamine Bara bu yegsee ne da koy tëj moog sëñ bi génn dem bàyyi leen fa ma toogloo ko ni ko damaa bëgg lu may wax ak sëñ bi nga nekk seede waaye mosu koo nangoo def ne loolu la àndee ñoom ba ni fi waajuram bàyyi ko lépp lu koy rafetal lépp mu rafetal ko ne mosu koo fàttaliku cim xelam. lu weesu nii mu ma jàppe rek nee bi fi waajuram bàyyi ko it fa ko waajuram tegoon nee sëñ Moustapha da yokk de ndax li koy firndeel lépp lu ñetteel am na doom tuddee ko ko te booba nekku fi sax mi ngi ci tukki te booba njabootu sëñ Bamba gépp a ngi fi ne sëñ Moustapha Saliou moo ñëwoon tudd si doom ja ne loolu cër la ne kon moom gisul dara ci diggante mu moom ne yow tam Mbacke ñu ngi lay sant xam nañ fi nga ci yoon bi fi nga taxawee ci moom ndax diggam ak yaa ak diggam ak moom ne daa jiitu lii sa jotaay bi ne magam sëñ bu ku ne ci moom nga yendu ba ci dem li muy xattan ba mu ko téye ni ko na xaar da ko ni ba guddi boo ma fi téye du ma fi jóge de lu métti métti ci moom it te loolu rek la boole ci itam nag jàpp biir boo xam ne di seenu ca na ndax mënut a weesu fu mu gisee nit ku baax ni ko na ma ñaanal. te yow doo ko ko wax. ne yàlla xam na ko nee lu am na ci loolu mooy dem ba yëgal ko boppam nee loolu mu ne su ko weex ku dañ lay bàyyee sa maam rek ba yaakaar ji ñëpp am ci yow ndax saw sa pasteef nga xam ne yaa ko defal sa bopp yaa ko jëndal sa bopp ba sëñ Tuubaa may na ko yaakaar yàlla bu mu tas yàlla la suñu borom dimbali ba sa waajur la mun naa loolu ci yéene te bëgg koo jëf lépp sottee ci loxo ndax ñëpp la ko yéene sarak yëpp yéene na la ko waa ko sëñ Tuubaa yi moom fi ñu la teg ca xol ci seen xol moom dafa maase ne mi ci waxtaan sëñ Moussa mii rek yaakaar naa amoo ci mu noonu te loolu yomb ne loolu lépp sa jukkoor ko may ne yàlla lépp yegg rek ne di di ko sant ne sëñ Youssou nii mu leen toppe ne sëñ loo ca fekk kon kii toppee lay ndimbalam mooy mu bañ a xool dara ca xam ni daa wax ku ma ne bu ma gisoon sama bàyyi dinaa ko defal lii sa taaw bàyyi fa loolu wax kese rek la. ne ko loolu moom ñu ngi ko ci soññi bu baax ne du nuyu nag bugaan ne sab taalibe waaye bugaan itam yàlla dafa def maam ak moom wëllëre wu yàgg ne wëllëre bu fekkee ëpp na fukki at ak ne du benn bis ne loolu yàgg na nee yëngu ci métier bu journaliste nee Bougane la ci jëkk a jaxasoo nee moom la ci jëkk a xam mu ñëw këram te bu yàggoon jamonoy sëñ Saaliw yàgg na lool nee lu mas a mu ñëw wax ko nee saa su nekkee Dakaaru moom Cheikh Madou Bachir guddi guddi ba muy am jot muy am jot moom nee guddi gi dana fa ñëw ne kon loolu tey bureau mi yëpp njëkk da ca liggéey ci wàllu communication boobu yëg seegul fii maag sëñ Mbàkke noo fa njëkk a dem ne ne 2004 la bu juumut ne kon loolu du tey ne loolu bugaan ñu ngi koy rafetal ne màggalu Cheikh Abdoul Khadir gu jot yàgg na boobu amagul rajo amul télévision waaye lu fay sonorisation moo ko doon indi loolu ëpp na fukki at ak juróom nekkoon loolu du tey kon ñu ngi di ko sant bu baax yel si Moustapha Cheikh Moustapha géeju ngëneel waaju ak si duy ku bay xondooj yaa tey ma wal fa Moustapha saw in tamaani lam jilaani aw in tamaani ahmad tijaani أو ngir yàlla ak jëmmi seex ma ndax sëriñ Thierno mi su may jàpp sëriñ seex Mbàkke tax moo tax mu jàpp ma ndax man su ma xamuloon ci moom sopp sëriñ Touba banaa ko lu ma am sëriñ Touba ma ko gënal sama ba askan yëpp tijaan lañ waaye man sëriñ seex sëriñ Touba laa yaakaar ci biti ak ci biir tey duma ragal ko wax fenn jëmm ji nag jàppale ci sëriñ bii tundu we nga xamni mo bok ci ndakaaru sëñ Omar jàppale ci jëmm ji ba bi sama yaay génn àdduna moom moo ñëw ànd koo Cerno ñu taxawee ko taxawee ko ba jullé ko ba rob ko mu albuti ku tok fa bañ ñaan ci ëlëk sa ba yëkëti amala bu ci bis ba lepp dara la ci kon nak abdourahman suma cierno defalé lolu yalla ak Cheikh Mbacke Gaynde Fatma tax mu defal mako, ko ndax man luma way defal sëriñ Cheikh la koy matullah ñu ngi len di nuyu di len ziarah di leen baalu àq bu baax fa tabarakallahu di ñaan yàlla yal na yàlla boole jéggal ñu di jiital sunu nuyoo ak sunu ziyaara comme ni ko sunu jur bii waxe ndax se sunu jotaay bi yàlla dogal na fa tabarakallahu jëmm ji ñu jàkkaar lool di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu soppee mu ñaw rot si fi ngir yàlla ak ak mbokk fa tabarakallahu ngir yàlla ak mbokki taalibe waaye ngir yàlla ak kóllëre si kóllëre goo xam ne ah sunu wayjur wii di alaaji màkka ja wax na ko si kóllëre goo xam ne fa tabarakallahu dafa doxoon si wayjuram fa tabarakallahu ak sunu wayjur woowu di mam gaynde fatma fa tabarakallahu moom it diggante moom ak sëriñ abdul fata yàlla dogal ñu nekkoon doon ko dund dundun bu rafet yàlla dogal tey Serigne Abdul Fattah jiitu moom mu desandi fi waaye kollëre googu mu di ko wëyal fa tabaarakallaahu ba si yéen ñii kon ñi ngi jiital ni yooyu yooyu ak ziyaar yooyu jëme si yéen Mbàkke di la jox sa wàccuwaay bu baax gannaaw yooyu nag di si sof ay ñaan muy fan wu gudd lool gu ànd ak ak wér di génn ay nuyoo yu ko teg ci loxoom di ko teg ci loxoom waaye jël nuyoo yooyu teg ko ci loxol xaas màkka jami moom nga xam ne mooy sunu buntu fii ci biir Touba nii ñu toogee nii nii nu toogee nii. nii lañ ko toogee woon nii lañu ko toogee woon. ak sa mag bu baax ak sa mag ju baax jooju. muy Serigne Abdul Fatah Mbacke. Mbacke mii xas ja mii. moo jàpp sama loxo moo jàpp sama loxo. indi ma ba fi indi ma ba fii. boole ma ak Serigne boole ma ak Serigne Abdul Fatah. cofeel cofeel. gu mag gu mag. nekk sama diggante nekk sama diggante ak moom. mu koy suuxat moom it mu koy suuxat. ñu koy suuxat ñu koy suuxat. màkk ku baax màkk mii. maa ngi leen di seedeel ni jëmb ju baax la. waaye mbaaxaayam waaye mbaaxaayam gi yëpp. waaye Serigne bi moo moo ko def si moom. maa ngi koy wax kerook si biir dëj bi. ma ne ko ma ne ko. wayjur ma ne ko wayjur. mën na laa jur mën na laa jur. fa mu la war a jure fa la war a jure. def ci yow li war a def si yow li ma war a def si yow. waaye waaye. yarin wa yarin wa. ak jikko ba ak jikko ja. ak melokaan ba ak melokaan ba. waaye sëriñ ba la. barakallahu gaynde Fatma na mu mel. di nga di nga ci biiram di nga gis si biiram. même melokaanam même ba sëriñ ba. moom da ko si moom fa tabaarakallaahu yàlla sedd na ko si. ay jikkoom la amee ba mu jeex. mu nekkal leen ci mu nekkal leen nag sa bambiloor. nekkin bu rafet fa tabaarakallaahu ba lii lépp juddoo si. bi ñuy ñëw tey nag sëñ Omar. fotabarakallahu Mbàkke fotabarakallahu moo ñu jàpp moo ñu jàpp sunu tànk ak tànkam ba ñu yegg si fii jaar nañ si xalifa bu tedd ba ñu ziyaara ko sargal ko ndokkeel ko si bés bi waaye ñu ñëw fa tabarakallahu jàkkaarloog sa saxaar kanam gu tedd gi ñu ñëw nag fa tabarakallahu comme ni ñu daan ñëwee at bu ne bu ma ñëwee si kër gi fa tabarakallahu ràññeewu ma ko waaye bi ma taxawee fii tey sama xel ñëwaat ma fàttaliku la woon démb ak nañu daan ñëwee bi ñu duggee bi ñu duggee rek sama xol bi tooy ngir yàlla ngir yàlla ak fàttaliku soppe bi fi nekkoon muy Serigne Abdoul Fatah Mbacké muy ku baax muy ku baax muy ku yaatu muy ku dal fa tabarakallahu bi ñuy toog bi ñuy toog xol yi di jooy xol di jooy tuuti rek tuuti rek ñu seen nga ñëw ñu seen nga yegsi sama xel mi nag dal mel ni Serigne Abdoul Fatah laa jàkkaar est-ce si melokaan bi ak si dal gi même fa tabarakallahu ñi ñu saafonte dara soppeeku si ma delluwaat santaat yàlla ndaxte mënoon naa mel na neen nu dul nii mu mel kon ñëw nanu ndokkeel la si bés bi ñëw nanu jël sunu wàll si bés ñaw ñëw nanu jël sunu ñaan si bés bi ñëw nanu ñu wettali la jàppale la fon la waroon a féete rek incha allah ñu féete la si bés bi kenn desul kenn desul ñoom ñëpp waa Bambilor ñëw nañu tënku nag fa tabaarakallaahu si ñun fi fekk rek di xaar sa ndigal di xaar nag sa ndigal sa ndigal rek sa ndigal rek lépp loo digle incha allah mbàkke ñu jëfe ko noonu dem leen dëkkee ngir loolu dafay ànd bu yàgg ngir sa waajur ak waajur wa dañ ko seqan bi nga ñëwee wuutu ko itam nga seq ko ak yàlla dogal moom mii di seen jëwriñ mboolem lépp képp koo xam ne bii ne wala réewoon nga ak kër gi rawatina yow mii nga xay sa waajur ak say seex kenn la woon daaw ba mu fa ñëwee wane na ko ndax mboolem bari lañ fekk waaye bañ ñëwee da nga ko war ne ko sa kër nga ñëw doon ma ci kër gi dara ndax waajur yoon sëñ mun sëñ Abdou faraa doxan loolee sëñ Omar mi nekk ci diggante bi sëriñ bi wax ne sant na yàlla bi nga ñëwee fekk nga fi ay bokkam di sëñ jiili mi nga xay mooy doomi sëñ Modou Boussa nga xay moo ko wut tey sëñ Omar mi nga xay di rakkam di loxoom lépp ànd yéen ba indi ci kër gi kon sëñ bi wax na ne mi ngi leen mas sa coon waaye nag seen kër ngeen ñëw yéen yéen a war a dalal kër gi yéen ko moom xam na cër bi ngeen fi am cër ba nga amoon ci kër gi yàlla na wër dafa gën a yokku loolu nag mi ngi ko seet fi kanam rakkam ji sëñ Omar xamal ne sa kër nga ñëw yaa war a dalal yaa war a yeew yaa war leen waaw sa kër nga ñëw yaa moom kër gi yaa moom lépp ba fa xasee ñëw sax moom day génn jox la ci àddina waaw muy tey muy ëllëg kon nag nee na sant na bu baax ndax bis bis bi yéen ko bokk ca xam na ni ko jàppee ba bàyyi lépp ànd ak mboolem ku sës si ak kilifa yëpp ñëw teew ci bis bi ngir won bis bi ni mu toll si yow kon sëñ bi xam na loolu bu baax. tabeek topp yàlla ak diine moo sax fa Moustapha kila am médaille fii saayirin bahda baatinin inaayatuhu xablal wilaayati Moustapha kile imbake mbàkke waa ke lugaak ndaam di kër kangi ña doon kaañi kankaak mbaa kulo fa mustawa wasra boo dex gaa ngi fengat te dootu daay sëriñ bi di barul judi nur len fa mustawa wala istawil barani asbun sarabo وملخن أجاج بالخياس نتك مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا سيخ أمد مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا fanta basirun yow te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy see ka farjaki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoo te ña daawaate mustawa